ni sunu yaay ji mhm. day wax ak yow hmm? nga wara a ko senegal ni yaangi dem france faju ali alima fi nga nek ci sa am ñu wax ak yow naan la parel jaaga dernier dugg bi ngay dugg ci sa néeg ngi ni oh. japp nga ni da ngay dem ñëwaat waye fanaan bi nga fanaan jaaga ci sa néeg mooy sa mujjantalu fanan yaangi jaabant ci néeg bi diko xol mun la xol bi ngay xol moy sa mujjantalu xol ngay taggu sa njabot nan ma ngi dem fa ji medecin bi heure nangam la ma jox yàlla ni la yaa ngi tàggoo ci jëmm ji waaye ñëwaat bi dina wuuteeg dem gi oh. tànk yi yaa ngi koy dox ci escalier yi jaaga mooy dox bi ngay mujjee dox ci sa ay escalier oh. yaa ngi génn ci sa buntu kër yaa dox dox bi jaaga mooy dox bi mujjee dox ci sa buntu kër gi bi ngay génn di dugg ci sa oto sa chauffeur di la dawalal muy wax ak yow naan la jaaga oto bi yaay borom de waaye tey nga ci mujjee yéeg ndax da ngay faju ji te dootoo dellu si doon doomu aadama buy dund hmm. chauffeur bi dawal mu naan la xoolal la dese ci àdduna réew a ngi réew a ngi nii di Sénégal bés bii nga fi génnee tey mooy bés bi nga koy mujjee xool ngay xool naan diw de ak a jàmbaar ci liggéey bi yàlla ni la tekkat loo romb dootoo ko rombati génn nga sa kër dootoo duggaat ci kër gi romb nga mbedd mi dootoo xoolaan mbedd mi dugg nga ci sa oto fii nga toog tey nga ciy mujjee toog avion bii nga toog place bii nga toog tey ngay mujjee toog ci avion mooy sa dernier toog ci avion mu yéeg jëm kaw nga ni di sa nga ni ko jëmm jaa ngi yëg waaye ruu dina ko gën a kawe nga dugg ci biir hôpital yàlla ni la nak dug nga fo xamanteni fi ni lima waxon ci ñaar yi moy li lay dal wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsu bay ardin tamuutu ay ma yàlla neena nit duma la wax sa wërseuk numu toll ku la wax ni mën na la ñaanal nga am wërseuk daf lay nax man yàlla ma xam fi wërseuk nek ma koy joxe wërsëg waaw wa ma tadri nafsu bay ardin tamuutu suuf si nga wara génne aduna yàlla neena na ku la wax ne xam nako dalay nax boko waxon waxoon ni ko France nga génne aduna du fa jooji deug la nga dem génne aduna toog ba ci yàgg melo yàlla yabal lu mel ni écran géant mu jàkkaarloo ak yow ni la tey mooy sa premier jour ci àllaaxira nag allahu akbar la ilaha illallah tey mooy sa dernier jour ci àdduna nag li ma la waxoon sànq li Serigne Cheikh wax bu yàlla pareegul ci yow otoraay sax mën na laa jéggi nga faxasu doxi say soxla dëgg la waaye bu yàlla paree ci yow bu la mel ne tànn maatoon sax nga faatu tey yàlla nee na dundu mission gi da ngaa waroon génne nangam ci njaboot nangam nga waroon sëy ci ay at kii nga waroon dajeel lii moo doon sa mission kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi ku ne sàmm nga te kenn ku ne li ngay sàmm bu yowmal xiyaamat nañ la ko te yàlla nee na dee victoire la yonent bi nee na ad dunya àdduna sijnul mu'min mooy aljana yi aljana yéefar yi wa jannatul kaafiri euh, adduniyaa adduna sijnul mu'min mooy kasoy jullit ni wa jannatul kaafir di àjjana soo sa loolu mooy lan mooy ah, jullit àdduna coono la ci moom olof mooy wax ni yàlla na coonoom yam ci àdduna muy benn mhm. mbaa mu wax ni lu bees neex ba mu des bàmmeel ma ne ko bàmmeelu ku jëm aljana malaaka yërmande di la teeru nga war a am ngërëmal yàlla alima guddi googu mbaa bëccëg googu amul lu ko dàq ci jaamu yàlla dëgg la dëgg la xam ruu gi déplacé wu alima nopp yi di dégg waaye dootoo communiquer ak nit ñi sa lisaanu xaal mooy wax ak yow da ngay jékk ba caagu ku mel ni waali jooy nga ne waa waali mi lu muy jooy di yow yow mi dee yow mi dee di communiquer ak sa lisaanu xaal mu jooy Aïssa mu ngi fa Aïssa jooy mu ni ñii lan la ñuy jooy lan mooy seen problème du xam lan moo xew moo xam tirwaal la moo xam lenn dootul dégg benn buur wi tekk lay dégg mais kuy génne àdduna boo tolloo ci sukuraat feebar boo mënoon am doo ko yóbbaale day wér ci saasi parce que bu sukuraat ñëwee alima mooy dimbali lu mu mënti doon mooy sang lu mu doon foofu mooy terminus final oh. mais gis nga bu ñu la dugalee ci avion alima riir bi du xam lu xew du xam ni génn àdduna kees gi bu nu koy wàccee nga yëg ni dëkk bii nga bàyyeekoo woon bi nga fi bàyyeekoo yaa ngi si ay nopp yaa ngi wax yaa ngi dégg yaa ngi def lépp ci ci ci siège nga toogoon ñu dugal la ci kees do yeglu xew mais jàppal gi ak bayel gi ngay commencer di communiquer ak sa njabot di wax lu xew diw wali lu xew. ta ken du tontu. ken du tontu bobu sa xal ngay waxal jàpp leen fii mu ne lan mo xew Alioune lan mo xew. allah akbar lan ngeen di def ciow li lan la ba tay du xamni mom moom dafa génn aduna la ilaha illa ñu jël jagat jagaté zikari yi commencé. laa ilaha illa laj wala ñin ñi di julé la yàlla wax ni aliman nit bu genné aduna li mu rafet la génne leen ko mhm. li mu baax le génne leen ko wax leen ko uskuru waxtaane leen ma maxaasina mawtaakum ki dee li ma rafet le mhm. fi ma jaar ak moom ci biiru wayjur ba dugal ko ci biir bàmmeel mhm. mboolem bëccëg yi mu yendu man yàlla xam naa ko sama bëccëg yi lu ma laaj mu wax ma ci moom sama guddi yi lu ma laaj ci moom mu wax ma ko boole naa ko ñaari malaaka yoo xamante ni saa yu demee ba cëggi ba guddi jot ñu daw ñëw wax ma fi mu jaar man xam naa ko waaye waxtaane leen ay baax baaxam bu ñuy seede mu naan lu xew waa kooku ma dégg du waaw diw moom di jooy lu muy jooy alima nag bu demee ba des nag dugal cee almeer ñi ci almeer yi nga nuyoonte ak ñoom ñu jàpp ne yaa ngi dund ñu indi wàcce leen mu naa leen ko ngeen di wàcce waa li lu xew Mouhamed lan moo xew Aline lan moo xew diw lan moo xew ñu naan wàcce leen wàcce leen alima ki gën a jege di ñëw yàlla ni distance boobu ak ni nday neexe bu gën génnoon guddi taw te doo am jàmm tànk ñëwul bu feebaree nga def si sa xaalis yàlla nee na boo tollee foofu dinaa fexe ba pikiir la pikiiru ñàkk a ngir nga mën ko sotti suuf bu ma la ko pikiirul doo ko ko sotti ngeen yi wàcc koo miinoon koo xamoon ko bëggoon di wàcc ci biir bàmmeel yàlla roof la rocc tuuti yërmande ak ñeewante ngir li mu la sant nga mën koo def boo koy wàcce nag mu naan leen lu xew kan moo dee oh. ku ngeen dugal ci bàmmeel Lini ñuy wax yek yek la yalla la yalla di rocc alima ba bu lay sotu suuf do yek ni ñu lay sotu suuf waye bu ni dox nga koy yek ñuy soti diw di wax joxe len ñaan def len nangam a ah, tout temps nak ñi nga communiquer ak ñom yow sa lisaanu oh. ku ngeen di denc lu xew ku ngeen di sul ku genn aduna alima yonent bi daan na wax naan alune yow fadlu ak xusam Alioune baayam ak baay yonent bi ñoo bokk benn baay Alioune Abi Talib. Xusam ak Fadlu. Euh, Abbas moo leen jur Abbas ak baayu yonent bi ñoo bokk ndey ak baay. yonent bi wax leen bu ngeen ma suulee ba noppi. maa ngi leen di ñaan bu leen gaaw a génn fi ngeen ma denc yonent bi laa la wax. ki yor caabi aljana dama leen di ñaan. taxaw leen ngeen wéttali ma ci bàmmeel ci laaju ñaari malaayika yi yonent bi laa lay wax. taxaw leen ngeen wéttali ma bu leen demagum. alima buñ ko dugalee ci biir bàmmeel bu nit ñi nee bëreet jóg malaaka yi du ñu ñëw day dégg rek lu xew ku génn àdduna ba fi ñu ko dencee du yëg lu xew nit ñi bu ñuy dox ba juróom ñaareelu tànk ku mujj ci bàmmeel bi nag ci la ñaari malaaka yi doo suuf si allahu akbar la ilaha illa dëj la nga toog fëll a jàkkaarloog sa xar kanam ni la innaka mayitun boo xamuloon ni dee nga tay la bisa ngi nii fa taqu yow man turjauna fihi ila llahi malaaka yi nu ñuy mel summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamun malaaka kenn mënu ko melal ku dul yàlla benn nga ci am droit gis te boo ko gisee dan la koy nettali muy malaakal mawti nit ñi xam ni kii kat malaakal mawti ñëw na ci moom mais kenn mënu la koo misaalal comme nit da nga koy jàngal faw nga jàngal ko laaf ni ko malaaka am na laaf mais mënoo xam nu xar kanamam mel mënoo xam nu ko yàlla bindee mënoo xam jëmmam nu mu toll waaye mboole malaayika yi mu malaakal mawti ci ëpp alima la ilaha illa ñu ibbi suuf jàkkaarloog yow nga dégg tànk ñuy dem ñu ne la tey mooy jaaga nga ni la béykat ñu ne la tey mooy sa premier jour ci àllaaxira tey mooy sa dernier jour ci àdduna oh. alima wax naa la sànq benn baat ni la mbégte koo gis naqaru ñenn ñi la mm-hmm. jamono ji may wax ak yow yaay euh, euh, nu mu tudd euh, muumee ngi ci mbégte ndax ku mu na ma ngi koy fekk si oh. bàyyi coon a ngi ci mbégte ndax ku mu na ma ngi koy seet ku ko yàlla boole woon mu ngi koy seet mbégte mi nu am ñoom ñooñu ak waa alaxira yonent bi am na gan tey mhm. ndax ki génn àdduna xaritam la ki génn àdduna soppeem la démb ci guddi ñu ngi koy waxtaane ci kër gi mës na ma laaj bés ñoom oustaz Ali lépp seede lañ ci mune ma yonent bi ban bis la dugg bàmmeel ma ne mune wa mu ne waaye yàlla na ma yàlla dugal euh, euh, àllarba àllarba àllarba bir bammel ah. xol bu génn àdduna aljuma samedi dimanche altine talaata àllarba minuit la yonent bi dugg bàmmeel àllarba 17 h ngay dugg bammel ngeen bok ben bis ngeen ko bokk moom moo la laaj ni la laajal dem rek yonent bi kagn la dugg bammel ban bis la dugg bammel ma ne ko bisu àllarba mu ni la mune sama bis yalla yalla tombe bisu àllarba xolal lol te tay ci àllarba ji ci 17 heures 17 heures ci la ñu koy denc suba ci alxames من وقت الروح يدي دجا برزق نخ نخ نيجي نعبنا الخمس بوجت أكالتين بوجت دنيا ندفل إكران جاي نخول سين جابت نيو نكيا بوسوا تيمين تلا نقول تقال إكران مخول جينو أدنا خول فين قدار توبا نو أعمالنا يوم الخميس توبا نو دفن برل أعمالنا سنو yowmal xamis lahu bisu alxames wa yowmul isnayn ak bisu altine fi istigfaari zil jurami la ilaha illallah bu ñu ko dugalee ci bàmmeel nag alima malaaka yi ni ko egsi nanu kuy sa borom mu tontu ban diine nga bokk mu tontu ban téere moo doon sa téere mu tontu ban yonent moo doon sa yonent mu tontu ñu wan ko fato yonent bi ni ko na xam nga kii kan la ma ni dina wax kanam gu mu miin sallallahu alayhi wa sallam dina wax kanam gu mu sopp